waa gis ngeen ngeen mën a gën a arrêté mooy yi aw la fi mu mel ñoom Abdou Karim Gueye lañu nii léegi léegi waa ñoom lañu arrêté tey parce que nga xam ne Clédor Clédor Sène mu ngi si oto bi taxaw gaa ñu ngi taxaw ak ñoom Karim Gueye ñu may arrêté léegi léegi nii tam lañ jàkkee oto police bi nii ñu ngi fi nga xam ne mooy autoroute bi Clédor mooy gën nii Clédor lan lay wax Clédor moom moo gën léegi léegi ci oto bi Clédor lan la kon dèjà ka Bachir mën naa wax ne yëf yi commencé na léegi léegi ah parce que dafa mel ne que ne li nga xamante ne waa bi nga xamante ne ñoom ñu euh, commencé di demaare donc. Abdou Karim Gueye may wax nii. ki lay doon lan nga jëlee ci biir. waaw ñoom dañ leen ni i faut ñun ñu xam fu ñu yóbbu Karim parce que dafa feebar dafa war a jël ay garabam. Ah. nee na ñun xaar après xam naa dañuy xaar ay instructions. d'accord dañuy dañuy xaar ndigal donc euh, on est en train d'attendre. xam fi ñu ko jëmee ba tey. non non nanguñu ko. d'accord mais euh, nee nañu nañu xaar. d'accord xam naa ndigal voilà ki nga xamante ne mooy ki lay ki lay doon wax nañ Abdou Karim Diallo loi bi du jàll. Abdou Karim Gueye ma Abdou Karim Gueye. personne ne peut nous intimider. mooy mag bu ñu intimider. ok Abdou Karim Gueye may wax noonu léegi léegi. mon frère on n'a pas peur on le fait pour le Sénégal c'est comme on le fait pour le Sénégal on n'a pas peur. ok ok. waaw dañu leen di wàccee. ñu ngi libéré booy yi. voilà. Karim Gueye bi béré nañ ko léegi léegi mu ngi nii yéeg ci moto bi jëm place de la nation fa lañ jëm nii bokk internet yi moom ngeen gis nii ñu toppal leen ko Abdou Karim Gueye lañ libéré léegi mais gars yi ñu ngi interprété li nga xam ne mooy yi bu nangu suñu jumtukaay yi ñu liggéeyee parce que coow yi am. voilà gis nañu Abdou Karim Gueye mu ngi delluwaat li nga xamante ne nii mooy assemblée mu lañ ànd topp nii boobu ba léegi ah Bachirou dafa mel ne Karim Gueye foofu la jëmaat parce que ak tamit ay saa lañu assemblée. tey fan lay faral. ku mel ne ka ka lim libéré nañ ko Macky Sall dictateur Abdou Karim Gueye mooy Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Abdou Karim Gueye koy wax nii en fait que ñu war na bañ arrêté waat ko en fait une fois encore une bañ jàppaat ko Abdou Karim Gueye léegi léegi la fi jógee ñu arrêté waat ko mu ñëwaat fi tamit encore léegi léegi tamit alors encore Abdou Karim Gueye ñëwaat na di li nga xamante ne jàppaat nañ Karim Gueye